mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu noo mbokki daara yëpp ak ñi safoo alquranul karim di ñëw rek joxe suñu xalaat ci ndaje mii nga xam ne son excellence président Macky Sall woote na ko woo ko waa alquranul karim muy ndaje moo xam ne nag euh, fàttalikuwuñu bi fi Macky Sall toogee ba léegi mu am muy la première fois mu dajale mboolem daara yi ak ni mu ko organisé région bu nekk soixante-dix sëriñ daara ci niñ ko waxee ak ñaar fukki xale ay donga mu mat a jàngat lool nag noonu nag li ñu ci jàngat rek mooy euh, président Macky Sall ñu ngi ko éliroon deux mille dix deux mille douze deux mille douze ba deux mille vingt deux mi ngi door a daje ak sëriñ daara yi nu xool diggante boobu yi nag noonu ñëpp rek ba xam moom bana alaaqa xalaa amoon digganteem ak alquranul karim ndax daje mi alxuraan képp moo ko tax a jóg wala boog am na leneen luñ ci laxas loo xam ne yàlla mooy ki gën a xam ak itam ndax daje la moom ki ciy gën a gañe moom président la ci wàllu politique wala boog ndax am na lu ci daara di jëriñoo benn personnalité bi gën a rëy ci diine mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu ñu xoolee yonent boobu sallallahu alayhi wa sallam ci lu yàggul diggante bi ñu falee président Macky Sall ak xew-xew boobu nga xam ne amoon na fi muy caricature googu ñu caricature woon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muy personnalité bi gën a rëy ci diine président Macky Sall dafa ñëw. taxaw ànd ak ñoom wane ne dafay naqarlu rey gi ñu rey ñi doon ñaawal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu jóge ca loolu benn professeur bu ñuy wax professeur Sangaré bind benn téere boo xam ne dafay wane ne alquranul karim mën naa am kat wàccuwaay yi ko julli ñu jox agul foofu ndax la ca jiitu mooy faatixatul kitaab bi ubbi alquranul karim yàgg na fi lool ak lam ci wax lépp ginnaaw bi mu wax ne moom ci boppam président doon na ko encouragé di ko wax ne ko gis na maa gis sa mbind loolu ñaar la beneen bi ci topp mooy Covid 19 jaar fi am ay daara yu bari yoo xam ne président dafa wax ne nañ dajale nangami junni milliards ngir dimbali ci nit ñi ngir dimbali ci nit ñi seen dund ndax confinement bi ci amoon la ci topp. waaye loola amul benn programme buñ ci jagleeloon daara waaye dañoo waxoon ne nañ ko dindale dimbali population bi daara yi nag ñu tëj leen yóbbu xale yi ca seeni dëkkuwaay ndax ginnaaw bi mu jàllee delloosiwaat nañ leen loolu ku nekk mën na koo laaj boppam ci biir loolu itam mu mel ni am na ndami alxuraanu karim yi fi jaar yu bari manis na ci lim nday jaara ngom mënis na ci lim itam euh, Moujtaba Diallo mënis na ci lim Ndombor Sène mënis na cee lim sëñ Cheikh Diop mënis la ci lim itam sëñ Cheikh Dia ba kii ci mujjandeegun te mu jiitu tuuti sëñ Modou Mbàkke muy soxna Ndate Cissé ndax ndam yooyu bi mu jàllee lu ci nekk am na effort yu rëy yu président def yoo xam ne jëmal na ko ci digganteem ak sëriñu daara yi moo xam am ndaje la moo xam ay teraanga la maa ngi yebal ñépp seenum xel ñu xool ndax Moujtaba Diallo moomuy ak Ndomboor Seen ak soxna Ndey Jaara Ngom digg yooyu nga xam ne digg diggoon nañ leen ko ku yàlla dogal ñu xam fa ñuy jànge na dem xool ndax loole def nañ ko la defuñu ko ak itam ndax loolu bi mu jàllee ndax président woo woowoon na leen ñoom sargal leen wala boog loola dañ koo bàyyi woon mu jàll amoon na fii ay jamono dañ daan jël alquraanu karim di koy bu ca làmbu ja ay imaam génn di ko naqarlu ndax loolee moom am na benn taxawaay bu ci président wax amoon loolu fàttalikuwuma ko te gisaguma ko fàttaliku itam nag te yaakaar naa moom li muy bañ a gis waxoon na ko ci penc ñëpp di ko dégg ne man bokk na li may bañ a gis mooy bëggumaa gis lu xonq ndax mënuma koo gis waaye alquraanu karim moom mën naa am amaana mën na ko gis ci biir téere ba amaana la ca topp bokk na ci ndorteel nguuram mooy daara ju lakkoon fële ca Medina keroog ba fa tegee tànkam ca daara ja dafa def discours boo xam ne bu sévère la jëmale ko seen daara ñu arrêté seen daara ba daara ja yëgaatuma ak tijjiyam booba tey waaye bokk na ci lam fa waxoon mooy daara moom dañ koy réformer dañ koy réformer beneen bi ci toppaat mooy projet de loi projet de loi bi nga xam ne tënkoon nañ ko ñeel jaara nga xam ne projet de loi boobu su fekkoon ne fi mu nekk nii nii dajee wote nañ ko assemblée national wutal ko décret d'application ba appliqué ko fii may waxe ak yéen nii daara yu bare bare bare bare bari moom dañuy tëj daara yu bari yu tëju itam buñ dundee tuuti ba ña ko moomoon di kilifa yi làqu génn àdduna daara day tëj loolu moom xëy na ñi xam projet lu loi boobu mën naa am ñoom danañ ko xam la ca topp bañ bañ ca jàllee ñu indi fii lu ñuy wax projet daara moderne moo am lu ñuy wax pamot am lu ñuy wax paquet projet daara moderne boobu ñi ko xam xam nañ li nekk ci présentation projet bi ak li nekk ci contenu bi ñi nga xam ne ñoom ñoo ko am su fekkoon ne yàlla am na da ngay wax ne comme yàlla ak yàlla comme yàlla ak yàlla. Euh, la ca sab nag mooy ay sëñu daara ñu soxla leen ñu ne ban bis lañu leen soxla ñu ne bis boo xam ne dañ ciy jàng ñu fas yéene yëkkati juróom ñaar fukki sëriñi daara yoo xam ne dañuy xëy tëj seen daara jóge ci quatorze régions sénégalais yi fas yéene ñëw jam ñaajo juróom ñaar fukki sëriñ daara yooyu dañuy indaale ñaar fukki donga ku ci nekk wala bokk région ba dañuy indaale ñaar fukki donga yoo xam ne ñoom itam bis boobee dañuy laf seeni àlliwo ñëw wuy si dongo yooyu buñ ñëwee lu ñuy wut si man xamaguma ko dëgg-dëgg waaye daal nee nañu bokk na ci la waral ndaje ma mooy dañuy sargal dongo yi wax naa nag léegi rek ñu fi jaar ñu bari ñoo xam ne ay ndam lañu jële ci biti indi ko fii ba noppi muy ay ndoorte yoo xam ne ñoo ngi ko door a xam ba noppi mu am ci biir nguuram te gisuñu wax dëgg xaw ma man bokk jiiku bu mel nii boo xam ne séqi na ko ca léegi nag dafa am ñaari pal pal goo xam ne kooku àdduna la ak pal goo xam ne du kooku àdduna son excellence bokk na ci pal yi mu yor mooy kooku àdduna goo xam ne mi ngi tàmbalee woon 2012 yàlla mën naa def mu jeex 2014 sëriñu daara yi nag ku ci nekk bis bi nga tàmbalee jàngale ba keroog ngay bàyyi jàngale wala keroog ngay faatu sëriñu daara ngay doon kon yaari pal yooyu xàmmee leen lu ama ama am am solo la waxuma nag bu kenn wuy ji ndax ñi am xalaatu convaincre seen bopp ci ne dañoo war a wuy ji bu leen neexee man nañoo wuy waaye man duma ko def te duma ko digal nit te nit duma tàgguma bàyyi ko ca te duma ca convaincre doomu aadama itam nag ndax euh, li ko fi dese bariwul te diggante bi mënu fee defaat loo xam ne mën naa jëriñ daara te am na projet yoo xam ne wala boog ay documents yoo xam ne bindoon nañ ko bi ngi ci tiroir yi lépp luy jafe-jafe daara ak lépp loo xam ne lu koy saafara bindoon nañ ko ba jox leen ko ñoom amul benn suite kon nag jàpp ma ne suñu woote waatee di daje am na lu fa mën a waxtaan lu beesaat la ca topp mooy ñi nga xam ne ñoo jiite sëriñu daara yi nga xam ne buñ àggee mën naa am la ñuy wax dañ koy wax ci turu sëriñu daara yi bokk na ci ñooñee seeni taxawaay mooy projet de loi bii may wax ne buñ ko wote woon dana bëri daara yoo xam ne tey jii tas na ñooñu am na ñooñ taxawoon nañu temm ngir ñu woote projet de loi boobu ñooñu itam am na ñoo xam ne taxawoon nañu temm ci bi gouvernement bi waxee ne daara yi nañ leen tëj delloo xale yi ci jamono Covid bi te xalaatuñ dimbal leen bokk nañ ci ñi nga xam ne ñoo taxawoon ñoom tëj seeni daara ba noppi nag di encouragé nit ñi tëj seeni daara ba noppi sax xaw a naqarlu ñàkk ñi nga xam ne ñàkkoon nañ ko tëj yenn daara yi kon loolu. lépp mooy loo xam ne jaar nañ fi ku nekk na yow yaa xool na ngay dégg ak na ngay gis ak la la convaincre ci say xalaat waaye daal man gis naa ne mbir mi politique la te ki ki nga xam dafa nekk ci feeda reñam gis naa ne kuréel kuréel yépp am na ci yoo xam ne am na ci ay benn benn li ko dese woon rek mooy kuréel daara yi jombul am na ay bopp yu mu ci am waaye nag am na ñoo xam ne ba léegi ñu ngi des ak seeni gëm-gëm gëm alquranul karim nekk ci di ko liggéeyal nekk ay gayndeem te xaalis wala kaa ak pala mënu leen a yóbbu donte am na ci ñooñu tam nag loolu rek moo leen di yóbbaale euh, kon yal nañu yàlla defal tawfiq boo nañu jàngalekat alquran yi nga xam dañ ci nekk ngir jëm yàlla ji te sellal ko te yàlla nangul na ko